Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Hein. Merci de des likes, merci de des abonnés. Merci également Gaël de baisser les commentaires. Un hein. plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Hein. Sénégalais, fait pour maintenir 14 régions du Sénégal. nous Nous également l'hôpital sécurité de Nous sommes Nous sommes aussi Nous sommes Nous sommes de Nous sommes Nous On avance ensemble dans la magie l'actualité en continu gars yi ak teltam ñu fas yéene waxtaane ki nga xam ne ne mooy donc kii di Pape Alassane Gueye mi xam ne day dem nga xam mooy co FC Séville la fay demee lan moo ko fay xaar ak lu tax bu fay dem loolu yëpp nañ si indi ay leeral jox leen ci li nga xam nag mooy information yu ci clair net mais d'abord gars yi li nga xam nag mooy donc insolite di bokk xam ne mooy donc Kim Kardashian Kim Kardashian xam ngeen ko moo nekkoon soxna Kini West moom daal mayo bu waa AS Rome daal loolu nag jur coow fi ne nii gars yëpp fan sa euh, waa ngi sol mayo bi fi mu ne nii ñu ngi koy dekkaliwaat ba ñu naan est ki nga xam nag moom daal neexul quoi parce que temps yi li muy yi ne dañuy bañ mu ngi coow ne moom daal li nga xam moom lay def sikki moom bi étude ko bàyyi muy sax loolu daal neexu benn yoon tey na yi mooy final donc bu CHAN bu jigéen ñi Sénégal wala dajee Cap Vert donc tey lay doon incha allahu rabi donc 18 heures ñu naan suñu gaynde yi nag ah, ñu am ndam ah, suñu gaynde yu jigéen yi nga xam ne ñoom daal fi ne nii ah, dañuy wër di ñu gën a sargal saa su nekk ki nga xam ne nag mooy donc kii di Novak Djokovic égalé na record bu Rafael Nadal moo tax gars yi bi ne indiscutable ah l'équipe ñoo def lu mel wax doomu de grand chelem yi mu gagné mu toll ëpp na gars di grand chelem yo xam dal gagné nako ko tournoi donc Open d'Australie bi euh, ki nga xam aussi moy euh, xam ngeen ko pp donc le joueur ivoirien mom dal actuellement aussi mom dafa daal di en blessure motax tax mu daal di forfait avec Nice Nice nga xam nak nag perte na ci ben joueur bo xam actuellement bokon na ci meilleur buteur am ki nga xam moy donc euh, Karim Benzegol Benzema bo mu dellu see ci coupe du monde ba léegi hein donc c'est 7 sept matchs sept buts depuis coupe du monde début pour Karim Benzegol Benzema bi nga xam nak mom ak di Robert Mongols kii ñooy xëccoo euh, titre Pichichi foofu noonu ci Liga espagnole yi nga xam ne nag mooy équipe bi ngeen di gis ni ah donc di Palmeiras mooy donc euh, équipe bu Endrick Endrick mooy joueur bi nga xam ne moom moo am 16 ans gars yi doon ko coow te Real jënd ko ñoom nag ñoo ils sont euh, donc champion super coupe bi ñoo ko gagné foofu noonu ñoom euh, donc ñii di équipe bu Endrick di Palmeiras malheureusement également pour ki nga xam ne Ousmane Dembus Dembélé dafa daal di blessé ah donc seen match bi dem même bu fekkee ñoom ñoo daal di gagné un but à zéro Dembélé dafa daal di blessé blessure bi nag tax na jamono ji nag ñu naan kan moo ko remplacé gars yi ne boo moytul Gavi daal la ñuy jël joué loo ko côté boobu jël Rafinha joué loo ko beneen beneen côté bi Lewandowski ah wala Lewandowski nekk ci ah, attaque bi loolu daal la ñuy wax ni jamono ji daal moom la. qui dit Javier Hernandez commencé di dit du moment que ne Ferran Torres moom gars yi xam aussi en forme aussi di euh, Paul euh, Pogba hein, donc Paul Pogba gars yi actuellement contre Monza la un yéene euh, ñëw ci groupe bu donc Juventus de Turin ki nga depuis avant coupe du monde ba blessé donc il est de retour donc Pog back ni di aussi moom de également hein, donc di Tete moom dem na du côté de Leicester bu ñoom Patrice euh, Mendy le joueur brésilien bi nga xam dañ ko Lyon finalement mu ne nii dem na en Angleterre au moment dañ doon wax ne day dem Newcastle finalement notre ca foofu de euh, Leicester la dem aussi di Mauro Gusto officiellement joueur des Blues de Chelsea mon nag Chelsea le ko daal di mais le koy abal ñi nga xam ne mooy donc Lyon ba fin de saison laata muy dem. foofu nga xam ne nag mooy donc chez Blues fas yéene fa daal di jouer ki nga xam ne aussi nag mooy Moïse Caicedo moom mi nga xam nag ne nii mooy Arsenal Chelsea donc bu Graham Potter gars ban équipe nga gis ne fa la war dem jamono ji nag gars yi daal mooy coow li foofu Angleterre Angleterre également ñi jàpp ne ki nga xam ne mooy donc euh, kii donc Jürgen Klopp même bu fekkee ne résultat yi baaxul jamono ji nii daal waa Liverpool xalaatuñu dàq ki jàpp ne résultat yi mu def avant problème yi di am wane na ne moom entraîneur boo xam ne boo amee équipe bu baax am moyen yu baax dina mën a yóbbaat équipe bi fu sorry ñaar ñi tamit a commencé nañ ah, donc ki di Casemiro du côté donc de Manchester United dugal doublé la également Anthony Miguel gars yi doon kaas naan gëj na dugal passe aussi woné na bopam donc ñom nak seen match ñom ñoom ñoo gagné Reading ah, Reading bu ñu nga xamné moy ñom lu nga xamné ne sax le Sénégalais moom réduire la marque pour les joueurs de Reading ki nga xamné nak également moy Luis Campos jamono ji mi ngi incité du côté de Malcolm ah Malcolm ak Zenit fi ñu ne nii waxtaan la mais bu fekkee ne Malcolm dafa bëgg dem Paris Saint-Germain intéressé wu officiellement offre amagul mais aussi Fabrizio Romano diñu xamal né, ki nga xamné nak moy

fa nga xam ne donc ca Adana Demirspor bu équipe bu Pape Alioune Ndiaye il a signé donc lui également le jeune Narakan, donc Ndiaye mais joueur je xam ne aussi il est très euh, performant euh, Kini aussi di euh, donc Monaco ak bu ñoom Crépin Diatta Crépin dem dañoo di nul un but partout ñoom ak nga xam Marseille Marseille nag série de victoire mais nekkoon nag waa Monaco ñoo ko daal di Crépin Diatta Demi il était titulaire ki nga xam ne nag donc kii di Ismaël Jacob il est entré comme remplaçant Dimitri Payet nag moo jël bataaxal daal di ko jébbal ki nga donc qui di Bamba di ko encouragé ne ko sama booy sama rak sama xarit yow nekk nga coo boo nga dem euh, li ca marché nga woy di ko parce que nit ko am talent nga humble comme ni nga mës def rek woy seen yoon Pape Gueye proche du FC Séville gars yi dañ doon wax Stuttgart lañ doon wax Allemagne également FC Séville FC Séville nag fi ne nii ñoom dafa mel daal ñoom daal ñoo mujjee am li xam ne mooy accord ak Marseille pour daal di recruter ki nga xam ne mooy Pape Alassane Gueye maintenant nak, lan la demee Moi que ne Pape Alassane Gueye D'abord hein, ah ci ndorteel gi waa FC Séville qui euh, di Sampaoli m'ont insisté pour ñu d'aller indi le milieu euh, de terrain gaucher sénégalais parce que nee là. booy la boo xam potentiel et que daf ko soxla ci équipe am moo tax muy daal recruter Pape Alassane Gueye maintenant nak, nu muy demee mooy Pape Alassane Gueye dañ koy Al ñi nga xam ne FC prêt la avec option d'achat l'un lañ day aal donc kii di joueur bii di Pape Alassane Gueye Moi fas dem FC Séville ba saison bi Bonne saison bi également Séville nak, moom xool ndax performance booy bi arrangé na leen su leen arrangé ñu daal di koy recruter suñ ko arrangé aussi ñu daal di koy delloo Marseille en tout cas gars yi c'était les informations que je voulais vous donner Pape Alassane Gueye mi ngi samp drapeau foofu noonu ci FC Séville di jégaluwaat ci retard vidéo yi temps des problèmes techniques ak également xam nga rek xaw a jagari tuuti mais on avance ensemble dans la majorité des eSport gars yi jaa ngeen jëf